amu ko abut bu doon lu mel ne biñ waar nag nga xam ne moom ñëexul sa dëngal te it boo jekki-jekki as say loxo daa taq xëy na dana soppi ndox ma kon say boo seet pexe yoo def ba bañ a jekki-jekki as ndax boo jekki-jekki as ndox ma soppi ko faaw ndox ma day yàqu idd xaalukum seenu dugal ci tombi ci gimiñ maa an am ndox bi xadd xaddatin ànd ak yëngal ma majji yi ànd aku yàbbeem xawa moom almusamma mooy la ñu tudde madd madatankal wax ni ko day bëgg a xamle benn benn baat yi mu njëkk a xamle galax ni ko nee na boo jëlee ndox def ko ci sa gimiñ yëngal ko yàbbi ko boole ci loolu moo tudd galax ni ko waxaadul istinshaaxi dëgg-dëgg sarax ni ko jasublu maa yi mooy xëcc ndox ma bi na fa si an fi ci nooxu bakkan ba da dal addaay fa joox ga sarax ni ko moom nee na mooy nga ndox mi ba mu jege sa bakkan nga ñoddi ko ci sa ak sag noo muy nga xëcc ko ci sa nooxu bakkan mu dugg ci biir wala moo tudd sarax ni ko wa baalaxa jotal na al muftiru aji ñàkk woor ja mooy aji dog ja duna saa yi mu ci lu aji woor ilal xayaasi yi ba ca gën jaa sori paxi bakkan ya di xawlin xaal yi li ci wax aji xam ja nee na bu fekkee ne wóoroo nag moom booy sarax ni ko da nga koy ñoddi bu baax a baax ba ndox ma dugg ci biir li biir ba sori ca paxi bakkan ya boo waree nga yemale ko ci bunt bi rek ndax bu rëccee jàll koor gi lay dal ko waxaddul istinsaar yi dëgg-dëgg fiiru du wën a xol fi mu ci lu benn wuute an tatraxa mooy nga sànni mooy nga wàcc almaa ndox ma biir yi an fi ci ngelawul bakkan ba max maskil ahla ànd ak jàpp gën jaa kawe bakkan ba bi sababatul yasaari ci baaraamu sànnikaayu càmmooñ ba wa maxaxaate ànd naag moom ibhaamuha baaraamu dëyam ba laakal ximaar yi wax ñu nag mel ne mbaam nee na fiiru moom yomb naa xamle ndegam saraxndiku mooy nga ñor di ndox ma ci say noo mu dugg ci biir paxi bakkan yi léegi nag boo jëlee sa baaraamu sànnikaay ak sa baaraamu dëy ci sa loxob càmmooñ jàpp ci sa bakkan wal ndox moomee duggoon ca paxi bakkan yi mu génn ci bitti loolu moo tudd féeru mën nga koo def nag bu yam jërul nga di ko def far far ni bu ëpp ni ko mbaam di defee moo tax mu naa laakal ximaar yi waaye jàpp ci sa bakkan rek wal rek mu doy waaye jërul nag ñi mbaam di fiiroo mu tàgg wara du masira asi delloo masa bopp ba nag jaa dikk na min muntaha masatihi tàmbalee ci yemukaayu masaam nga al ula nga jëkk wantaha te mu yem lil mabda ca tàmbalikaay ba dalay wax lan mooy delloo masaa bopp ne la day boo tàmbalee ci jëbi fi ko war baaxoo saxe ci misaal dem ba ca dox fa nga war a yem loolu mooy dem bi moom mooy farata foofee nga yem nag ca masaaga ca dox ga boo ñëwaatee tàmbalee ci ba fi nga tàmbale woon ci jëbi nag waaw kay loolu mooy delloo masaaga loolu mooy sunna dañoo sopp rek nag nga tàmbalee ci jëbi ba ca dox ga waaye boo tàmbalee ci dox ga ba delluwaat ci dox ga yi du ko tee baax mabda u rasin tàmbalikaayu bopp mam bitun mooy saxukaay li chanri ñeel kawar ga wal muntaha yemukaay ba fawqal xafaa nekk na ci kaw dox ga fi jëxri ci lu biir fi ngay tàmbalee masaa gi mooy fi kawar baaxoo saxee ci jëbi nga wéy nag ba fa mu yem ca dox ga loolu mooy yemukaay ba ci dem bi gooñal bi guwaar nag ba ñëwaat fi nga tàmbale woon fi jëbi kawar baaxoo saxee wa jaxala def na almasimu aji masaaja al ibhamay ni ñaari baaraamu dëye fii daalikal waqti ci woowu waxtu xalal sudd xëy ni ci kaw ñaari kaabaab ya su ma jamaxa topp mu boole asaabi xal yedday ni baaraami yaari loxo ya bax dan lenn maxal bax di ànd ak lenn la xal wara si ci kaw bopp ba maan boole seen nee na booy masaa da ngay ràbbale baaraam yi gannaaw bëgg leen tooyalee bañ tooy su ko defee sa ñaari baaraam yi day nga teg ko ci kaabaab gi bu ko defee daal di bomb nag léegi wéy waa nga ci dox nga wañal ko waat ba jëbi nga tàmbale woon wa mashul udunay ni masa ñaar nopp ña yekkoon dana nekk zahiran ci zahir wa baatin ak ci baatin summata inna zahira topp naka zahir sa maa mooy la nga xam ne wali ya féeti woon ak ar sa bopp ba wa maa la nga xam ne alxaynu bët ba taqaxu dana dal bi ci moom huwa moom al baatinu mooy baatin ba inda din warax yi fa borom sàmm ga nee na masaa nopp yi moom da nga koy def biir ak bitti waaye nee nga seetlu ne buñ nee bitti bi mooy la féeteeg bopp ba nopp bi la ca féeteeg bopp ba nga xam ne boo dee xool doo ko seen moo tudd saahir si bu dee xool nopp nit la ngay jàkkaar lool lañ jàpp ne mooy baatin ba la nga du seen nag mu féeteeg bopp ba mooy saahir sa ndax dañ ne ab nopp ni ko yàlla bindee daa mel ne ab tóotóor banku wëlbati ko nag fett benkar ci ko wa karihoo sib nañu tatabbuhal xudooni toppatoo ras ras ya li annahoo ngir naka moom temps muqun ak jéggi dayo la boo ko bëggee firi xóotal nag mooy ci saanul baat bi waaye xëy na kon temps muq day amee maanaam temps miiq temps miiq moo di ak xóotal taxa muq nag moo di ak xóotu maanaam ak jéggi dayoo fi diini ci diine sooy masaa say nopp dañoo bëgg rek nga masaa benn yoon daal di bàyyi waaye jubluwuñu nag ngay toppatoo ras-ras yaa xóot xóot ya ndax loolu ëppal rek la ndax buñ jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko kon bi la nee masaa nopp yi xamal ne kon ak jàppandal lañ ca jublu wa afriqan na nga sotti ndox xala sababatay ni ñaari baaraami sànnikaay wal ibhamay ak ñaari baaraami dëy ya di ajli tajdiir ngir yeesal da lay xamal lan mooy yeesal ndox mu ne la mooy nga def ndox mi yees ci ñaari baaraami sànnikaay yi ak ñaari baaraami dëy yi bala ngaa masa nopp yi nga sotti ndox mu yees ci ñaari baaraami sànnikaay yi ak ñaari baaraami dëy yi ndax ñoom ñooy bëgg masa nopp yi loolu moo tudd yeesal ndox loxo bu ne daa am baaraamu sànnikaay loxo bu ne am baaraamu dey moo tax mu tudd ñaari baaraamu sànnikaay ak ñaari baaraamu dey tarti bu foo toftaleem nga al mazkur ga di buñ tudd an turati ba mooy nga toftalee kama kitaabu rabbina nit nga xameen téerib sunu borom bi xadratta ba toftalee na ko xam nga day ne woon toftale farata yi sunna la mu ne loolu nag mooy nga toftalee ni alxuraan waxee ne faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsaxoo bi ruusikum wa arjulakum ila al kaabayni alquran daa njëkkee raxas kanam teg ca raxas loxo ya teg ca masa bopp mujje tànk ya nga tegalee noonu nag la wax ne sunna la faslun li ab dog la fii faraidul xusli ci faratay cangaay faraidul xusli faratay cangaay arbaxul ñeent la la dañ fa ñoom awuluha jëkk seen anniyatu mooy yéene yéene yashrahu ci waxtu dana tàmbalee faratay cangaay bi ci njëkk mooy booy tàmbali nga yéene joox faratay cangaay ne muy benn wal fawru ak gaaw di wax gaaw rek mooy sosale loo def tekki la ca topp rek te bañ faa nekk def leneen ci sa tayeef boo ko tayee def le bàyyi ba mu yàgg nga bëgg a jàll la nga defoon day yàqu waddal ko ak ragg nga bomb gi ba tey farata la doo sot ndox rek bàyyi wa taxlilu shahari ak xalil kawar ga fépp fu am kawar rek ci yaram yi boo dee sangu farata war nga ko yëngal ba ndox mi jàll ba ca deru yaram wa bi dox si madforin ànd ak bés lu ñu lett li ku li mën ñeel képp koo xam ne dafara lettu na képp ku lett muy góor muy jigéen war naa bés lettee ba ndox ma dugg ca biir góor nag lay tax mu sañ a lettu mooy bu fekkee daa bëgg kawaram bañ a dagg kon day fexe ba lett yi bañ a nuru ni jigéen di lettoo waaye bu nuroon jigéen lettoo rek mu daal di araam te it mu bañ caa lettaale yenn kawar yu ci bokkut ndax ñoom dañuy jàpp ne muy góor muy jigéen bu fekkee lettaal na ci lu mat ñetti kawar yu ci bokkul rek faaw bu dee sangu farat war na koo dindi bu fekkee nag difoo ci geneen kawar nag mbaa da nga caa def benn kawar mbaa ñaar rek kon su fekkee dëgërut ba naqaree tooyal du aajowoo firi waaye ba tey du tee bu dëgëree këng ba ndox mënu koo dugg moom bu dee sangu farata faaw mu war koo dindi fas lum di ab dog la fii sunanihi ci ay sunaam fas sunanu foo sunaam ya arbaxun ñeent lañu xaslu yedin mooy raxas loxo xindab ti daayil fa ak tàmbali kal wudu indi ki njàpp faqtadi na nga roy cangaay am na ñeenti sunna bi ci jëkk mooy booy tàmbali nga raxas say loxo ñetti yoon ba ci tikku jare yi ba fi ñu takk montar nam doone woon sunna ca ba ngay tàmbalee njàpp noonu la doone fi sunna ci booy tàmbali ca ngaay mad madatun ak galaxndiku kadalika naka noonee la istinshaqun saraxndiku masxu simaaxil udni ak masa ban banu noppa xàmman ci li ca ña nga xam ne faaqoo kawe nañu sunna yi cangaay nag moom boo xësee weesu raxas loxo yi ngay tàmbalee da ca des moom day ay pax yoo xam ne feeñul ci yaram wi dañ di fa àggale ndox mel ne galax ndiku xam nga xar-xaru gémmiñ gi la sax ndiku pax yi bakkan yi la ba tey bu dee nopp yi bën bën ya ngay wax waaye doo wax jëmmi li nga mën a jàpp ci nopp yi moom raxas ko farata la kon kay bën bënu nopp ya nga masaa ko mooy luqar ci ko moo nekk sunna léegi nag bu fekkee jàpp nga njàpp benn benn ca cangaay la kon yi mu wax yépp bi galaxndiku muy saraxndiku muy masaa bën bañ nopp yi lépp dugg na ca biir bu fekkee da ngaa sangu kese nag te boole woo ci njàppum benn benn nag kon nanga galaxndiku waale saraxndiku waale masaawaale bën bën nopp ya ndax sunna yooyu dikk na mu war a dikkee famañ yurit dugg namm tarattubal xusli toftaloog cangaay winaa an ci ak toftale fa xadd nazamtuhu kon way naa ko kama xadd nuqi la niki toxaleef ko nee na ku bëgg a xam nag na gën ci booy sangu nga sangoo noona xamal ne kon way naa ko wayin wu leer nañ ko jëlee ca borom xam-xam yu mag ya wa kullu man képp koo xam ne irtasala sangu na min al janaaba ci janaaba fa ahsanul hayaati gën jaarafe ci melo yu fii ci moom an xasala moo di mu raxas yadayhi yaari loxoom ya xaddal jiimi li mub ñett lil kuuxi ba ca tikku jaraba idan boobee wa xasarate mu raxas allësi la nga xam ne asaaba jot na ko min aza ci sobe ene boo dee sangu janaaba daal na ci gën a rafet mooy nga tàmbalee ci raxas sa yaari loxo yetti yoon ba ca tikku jare ya bu ko defee nga tekke nag bu fekkee am na fu la sobe takkoon ci yaram wi nga njëkk koo tindi nga daal di jukki di tàmbalee ci jumbax jëm si ci buntu suuf beeg buntu sawukaay beeg foofu nga xam ne mooy awra ju mag gi mu njëkk a jukki foofu te bu koy jukki mu teewluwaale yéene ji bu raxasee loxo yi ñetti yoon fu ko sobee takkoon ci yaram yi mu njëkk ko dindi njëkk a jukki di tàmbalee jumbax jëm si ci awra ju mag ji muy sawukaay bi buntu suuf bi teewluwaale foofu nag yéene yi ca ngaay faratale mu daal jàll nag njàpp njàpp benn benn te nam tàmbale wu raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tub jara yi du aajow baamuwaat tey day loo noonu rek day jàll teg ci gàllaxndiku du aajo woon mu raxasaat loxo yi ñetti yoon moo tax mu teg ci tummata mad mada topp mu gàllaxndiku mahastin shaaxin ànd ak saraxndiku ila tamaamihi ba ci matam nga bila shiqaaxin ci lu dul ŋaayoo mooy ci lu amul benn wuute day jàll ci njàpp benn benn mi daal di gàllaxndiku saraxndiku moo tax mu teg ci di marratin ci benn benn mu xalilan mbir mu muy aji xalil usoola shahrin cosaani kawar di rasi yi ñeel boppam xalaamaa ci kaw li nga xam ne xii la waxeef na ko day njàpp njàppum benn benn te bu noppee ci njàppum benn benn mi mu teg ca raxas bopp bi bopp bi nag bala koo raxas da koy njëkk xalil maa day njëkk tasaare kawar gi ba nga xam ne bu ci sottee ndox ndox ma jàll ba ci biir mubtadi an mbir mu muy aji tàmbalee fii daaka ci loolee min mu wax xari jum jumatin ci mujjum daal bopp la wañeel ko li daf fi darari ngir fekk lorja nee na bu dee xalil kawar bopp bi da koy tàmbalee ca mujjum daal bopp la ko defee mooy tax kawar gi salfaañoo ba nga xam ne bu ci defee ndox ndox mi jàll ba ci biir maanaam nga bañ a jekki-jekki rek sot ndox mi ci bopp bi saasa te jëkk koo tasaare te fekk say loxo tooy nga tasaare kawar gi ba mu tasaaroo nga door a raxas nag loolu baax na ci wàllu yëru yaram gi ni ki bañ a jekki-jekki socc socc mu gaaw a gaaw boo jekkee-jekki rek def ndox mu sedd bi ci bopp bi ak it dana tax kawar gi tasaaroo ba nga xam ne boo defee ndox ndox mi jàll ba ca biir te kon loolu dana daal doon lañ santaane woon ci cangaayal farata muy ci wàllu cangaay li ci boppam wa xasalate mu raxas rësan bopp lëxwañeel ko bi salaasi xarafaat ci ñetti tàngiin min ba adima xadd xalla la ci gannaaw ba mu ko xalilee gannaaw ba nga tasaaree kawaruk bopp bi ba mu tasaaroo te ju bëgg nga raxas ko ak ñetti tàng bu fekkee ne yow bariwoo kawar kon mën naa am boo defee benn tàng sax raxas ko mu daal set waaye dañoo bëgg nga jàll ba ci ñetti yoon waaye nag bu yàlla dogalee sa kawar baree bari ràbbaloo ba nga xam ñetti yoon yi taxul mu setit ma taxul mu daj faaw dina aajowoo nga jàllaat ba kawar gi daj ndax daa bokk ci faratay cangaay fépp fu kawar nekk rek ñu yëngal ko ba ndox mu jàll ba ca biir kon nga bu kawar ga baree loolu ba yetti yoon yi taxu koo daj ba taxul ndox mu jàll ba ca biir it waaw nga ëppalee ko yetti yoon yi su ma tajaaxan la topp mu def alma ndox ma fiira xati yi ci tengom la aliyum naa lay ndeyjoor wa amaalate mu dëngal arra sa bopp ba wa xasalate mu raxas uduna wa noppam ba aliyum naa bay ndeyjoor wa yusunaahu ak noppam càmmooñam kazaaka naka noonee soo noppee ci bopp bi da ngay daal di jàll ci noppam ndeyjoor kon da ngay dëngal sa bopp fekk def nga ndox ci sa téngal loxol ndeyjoor daal di ko yóbbu ci nopp bi nag mi noppam ndeyjoor daal di koy raxas boo noppee ci noppam ndeyjoor nga jàll ci noppam càmmooñ wa xasalate mu raxas alxunuqa dox ga xasan ak raxas bax de zaaka ci gannaaw loolee soo noppee ci ñaar nopp ñi nga raxas nag baat beeg doq gi wa shiqahu ak wetam nga al aymana kay ndeyjoor li rukubati ba ca bëti wom ba suma ay saraxoo topp wetu càmmooñam kazaliki ni bi mutlaqin ci ndoxum mutlaq yaa ummu moom dana matale ndegam noppi nga ci bopp bi ak ñaari nopp ñi ak baat beeg doq gi nga jàll si ci wetu ndeyjoor tàmbalee ko ca mbagg ma te bañ a fàtte li bokk ci loxo bi te raxasoo ko woon ak poqtaan mi jëm suuf nag nga topp ko ba ci bëti wom ba moom wetu ndeyjoor gi jàll ci wetu càmmoñ ko moom it def ko noonu tàmbalee ko ci mbagg ma raxas mu wàcc ba ca bëti wom ba ndox mutlaq mi mu tudd nag mooy ndox mi nga xam ne rek moom la ñu jaamoo yàlla nga xam ne melawa soppi ko wut cafka ga soppi ko wut xet ga soppi wut ci dara loo xam ne lu ñu mën a moytu la waxasala te mu raxas rijlihoo tànkam ba aliw naa bay ndeyjoor inal kaax bi ba ca dojor ba wa ba adaxaa te nekk na ci gannaawam aljusra tànkub càmmooñ ba kazaaka naka noonee soo noppee wetu càmmoñ da ngay ñëw raxas tànk bi tàmbalee ko ca bëti woom ba mu wàcc ba ca doyar ya ndax ne kam jàppan nga jàppam benn benn moom kon raxasoon nga ndëggu la muy tànk ba ba ca doyar ya kon nag boo tàmbalee bëti woom ba ca doyar ya rek foofu daal nay mat noonu mooy tànkum ndeyjoor nga jàll ci bopp càmmoñ moom it def ko noonu tàmbalee ko ca bëti woom ya ba ñëw ba ci doyar ya wakk tamala te mu mate bi xasli batni yi ci raxas biiram ba wa xasli sadri ak raxas dënn ba min ba adima qaddama ci gannaaw ba mu jiitalee en xasla zahri raxas gannaaw ga su ko defee li ngay mottalee ca ngaay nag mooy raxas gannaaw ga ba noppi nag daal di jàll raxas biir beeg dënn bi nga xam ne noonu boo ko defee rek mooy melo wañ gën a taamu ci nit ñi sangoo farata waaye nag saa yu ndox ma melee nam war a mel rek nga yéenee sangu farata daal di sang sa yaram ba mu daj bàyyiwoo fenn fenn rek dal nay baax bu doon ab saas sax nga ubbi rek mu tiim la ngay sangu ba mu daj te bàyyiwoo fenn rek dal nay doy faslun li ab dog la fii tafsiri baadil alfaadi ci firi lenn baat ya daa am yenn baat yooyu dégg ci biir mu bëgg koo firi nag xaqiqatu niyati dëgg-dëgg yéene qasdu dil fu aadi mooy jublu boroom xol ba shay an dara bi ca xol ba li waj ci xaaliqil ibaadi ngir jëmmi aji bind jaam ñi laalil hawa du ngir bànneex nee na dëgg-dëgg yéene mooy nga jublu ci sa xol jëf joo xam ne yàlla rek tax nga di ko def kon jëf joo xam ne doog nga def ko ci sa xol te yàlla rek tax loolu mooy yéene nga xam ne defoo ko rek ngir bànneex déedéet ngir bëgg tuyaaba yàlla moo tax ka misli di tabarrudin ni ki kem boroomu serlu aw xaadatin wala aada mis la xudóoril masjidi kem teewe jàkka yéene mooy teqale jëfi jaamu yàlla ak jëfi aada nga xam ne kon bu jàppoon te yéene ca aw yaramam sedd dong waaye yéene waalewu ca jox farata mbaa dara ci ñu yéene ci njàpp kon loola jëfi aada dong lay doon dana ca am yaram wu sedd waaye du ca man genn xeetu jaamu yàlla bu doon jàpp nag yéene caa jox farata mbaa mu yéene caa yëkkatim toj ba noppi nag yéene waale ca aw yaramam sedd kon dana am yaar yépp dana am am njàpp mum jaamoo yàlla amee ca yaramu sedd am nag teqale nag ci kaw boo jàppee ngir loo xam ne jàpp mënu ca woon a ñàkk nga xam ne moom boo jàpputoon doo ko sañ loola moom lépp luy laaj jàpp rek mën nga ko caa def waaye nag boo jàppalee loo xam ne njàpp di caa gën waaye mënoon na caa ñàkk ni ki bëgg a toog ci jàkka ja te toogaale fa ak laab mbaa bëgg a siyaare ji boroom xam-xam mbaa bëgg a tari alxuraan ci saw làmmiñ ne na nde naroo koo laal ci say loxo yu demee nii moom dañ caa sopp rek jàpp mën naa ñàkk am jàpp yu mel nii nag boo leen jàppalee doo ca mën loo xam ne njàpp mënu ci woon a ñàkk ni ki doo mën a julli ci njàpp mel noonu doo ca mën a laalub kaamil mbaalu ko nuru ni ki wër kaaba kon li gën a noppale mooy boo xasee bay jàpp rek nga yéene ca joox faratay njàpp mu daal di kon nekk am njàpp moo xam ne loo bëgg a def rek ci xeetu jaamu yàlla man ko caa def ba kera muy toj wa yukrahu def na sip annut ku tudd ga bihaa ci yéene ja illa isaa xadd kaana ndare ndem nekk na daa was wasatin di boroom jax-jaxe xel fa yuxtada kon def na ko roy nee na yéene nag moom ci xol lay nekk boo ko fasee rek ci xol bi baax na waaye taamuñ ku ko wax ci làmmeñ wi lu may nag moom xelam day jax-jax nga xam ne boo xul yéene ji ci làmmeñam faaw muy jax-jax ba xam yéene naam yéene wut kon bu dee jullee bu dee jàppoo bu dee leneen sayo ba mu far ko tudd ci aw làmmiñam wal wacc fu kanam nga xadduhoo limitam ba lëxoo ñeel na ko toolul ab guddaay dama lëxoo naka mu ko ñeele la dal jami fa mboole seen aradun ab yaatuwaay xulima bopp xameef na ko te nag kanam gi ci boppam dafa am ab guddaay am ab yaatuwaay mu lay bëgg a xamal nag guddaayu kanam gi ak yaatuwaay ba wattoolu guddaay ba mimma mim man biti shaarin mi ngi tàmbalee ci saxukaayu kawar sientiyaadin biti boroomuk baaxoo li muntaxal zaqani ba ci yemukaayu daaju sikkim ba foofu xam na nga dégg almuraada na mel ga wal xardu yaatuwaay ba min ubinin mi ngi tàmbalee ci nopp ilaa ubinin ba ci ab nopp waxee la waxees na ne min xisaarin mi ngi tàmbalee ci ay faas li xisaarin ba ci ay faas yaa nabilam yow aji xellu gannaaw ba mu ne kanam gi am na guddaay am na yaatuwaay dafa xamle yaar yëpp ne la guddaay bi moom mi ngi tàmbalee fi kawar baaxoo saxee ci jëbi ba ci suuf sikkim bi mooy ba fa sikkim bayam loolu mooy guddaayu kanam gi yaatuwaay bi nag moo tàmbalee nobbee ba ca nobbee am nañu ne moo tàmbalee ci faas yi ba ca faas yi waaye tàmbale nobbee ba ca nobbee rek moom mooy li gën a siiw kon booy raxas kanam gi na nga sàmmonte guddaay bi yaatuwaay bi fépp daj bañ cee bàyyi dara dara xaqiqatu dal ki dëgg-dëgg ragg ga te xaw li faxali ci waxi kuy la imraaru ka mooy sa rombale alyada loxo ba xalal ma xali ci béréb ba bis sab bi maa in ànd ak sotti ndox ma xaw ànd ak moom aw ba adoxoo wala ci gannaawam tawas sutan ci digg doomu kazaliki ni xakaa la ko nettalee man ka nga xam ne xaddaxoo daytal na ko mbaa xamle na ko ragg moom mooy bomb rek boo awalee sa loxo ca béréb ba daal ni ki ci cër ba daal mooy béréb ba nga bëgg a ragg daal boo ci awalee sa loxo rek bomb loolu moo tudd ragg mooy ak dal ko mën naa ànd ak sot ndox mi nag man ngaa sotti ba noppi wëlbatiku door a bomb gannaaw ba nga wëlbatiku sottiwaat mooy bomb gi mën na ànd ak sot ndox mi mën nañoo bañ a ànd wal fawru fawru xadduhu ab dëgg-dëggam xalaamaa ci la nga xam ne dukkira tuddeef na ko waa xobbira te firéef na ko it bil muwaalaati ci muwaalaati la dajum fa ñoom ityaanukum mooy seenu dikke bi kulli fi'lin ci jëpp jëf yendel yi kej dana feeñ li tuxri ñeel laab ay li mu ci namm fii zamanin ci jamono muttasilin bi aju jokkaloo min xayri tafriqin ci lu ak teqale xabihin bi aji ñaaw waxtala fa wóote na fii ci moom assala fu dawal ba xel waajibu ndax aji war la aw sunnat wala sunna la alfawru dañ koy wax ci téeri ndaw yi alfawru koy firee gaaw waaye almuwaalaatu ci mu wax nag muy ëpp ñëw ci téere yu mag yi kon dees na ko tuddi alfawru daañu ko tuddi almuwaalaatu loolu mooy jëf ji ngay jëf nga jëf ko mu susaloo loo noppi teg ca la ca topp loo noppi teg ca la ca topp te bañ koo teqale teqale bu yàgg ma ne boo doon jàpp boo raxasee sa kanam daal di koy bàyyi di waxtaan ba mu neex la mbaa ngay defaat leen ba mu neex la nga bëgg a jàll day yàqu ndegam yaa ko tey bu fekkee fàttee tax moom waxoon na ko du watee baax kon bañ nga yeex nga xam ne yàlla la bind yeex te na ngay jàpp yeex mbaa na ngay sangoo yeex waaye daal fexeel ba loo def rek teg ci la ca topp bu sësaloo wala boo ko defee rek baax na dañ cee wuti nag ndax waru gar la maanaam farata la wala sunna la ñu bari dañuy wax ne nag farata la mënta ñàkk tatim matul li ak mottali la wajitani boo na ngeen teet xam sata asiya juróomi yëf la daa wuddoo ikum fa seenum jàpp ida aratum dem na mu ngeen alhuda jub ga ñen am na juróom yoo xam ne boo bëggee sam jàpp gën a baax na nga leen moytu ndax taamuwuñ leen wax yee ñoom lapp mul wàcci mooy pes kanam nga bil maay ca ndox ma jël ndox mi di ko pes ci sa kanam di ko dóor ci sa kanam loolu tàmmuwuñ ko danga ko ci sotti rek tàmbalee bomb waaye jël ndox mi di ko pes ci sa kanam moom ëpp naa def kazaliki nii takbiru man kàbbaru ka nga xam ne yaax silu dina raxas wàcc san kanam uxi sa jàppeef na ko ba tey booy raxas sa kanam ngay kàbbar kàbbar baax na waaye nag boo ko jàppee sunna ba tax booy raxas sa kanam di kàbbar loolu tàmmuwuñ ko ndax da ngay mel ne kuy sos lu ca bokkut wa misluhu am kemam la aydan ba tey tashahudun tudd baati seere xon naa ko foofee ba tey ba ngay raxas sa kanam ngay tudd baati seere yi loolu boo ko jagleelee njàpp mi nga xam ne fa nga toll ci raxas kanam nga moo tax rek nga di ko def kon nga mel ne kuy sos lu ca bokkut kon ba tey ñu sib ko wasa bu maa ak sotti am ndox min tax ti jabxatin juróon ab jë ndax fa daaka loolee yëf di day àggale ila masil la si jëm ci masa la nga xam ne fawqu nekk na ci kaw ba tey nee na booy sot ndox mi taamuñ nga sottee ko ci ron jëbi ñoo bëgg nga sottee ko ci kaw jëba fa nga dëngal bopp bi sotti ko ci wetu kaabaab yi jëm ci kon taamuñ nga sotti ndox mi ci ron jëbi ndax li ci ëpp kon la féete kaw ci jëba su wëttuwut doo ko raxas da nga koy raay rek bàyyi te dañ ko war a raxas kon sot ndox mi ci ron jëbi di tax ñu sib ko rek mooy bañ la féete kaw ci jëba nga masaa ko képp bàyyi te dañ laa wax raxas waxuñu la masaa moo tax nag kon ñu sib nga sottee ndox mi ci ron jëbi daawoo na ngeen bàyyi naf dal yedday ni fëgg yaari loxo ya mooy wistan yaari loxo ya xabla maayen ci njëkk am ndox yàqaxu moom dana tàbbi maanaam as ndox mi daal di wistan say loxo te ndox mi danga ko as ngir yóbbu ko ci cër ba kon nag as ndox mi wistan ko door a tàmbalee raxas loolu ëpp naa def loolu lépp jëfi dof rek la kon na ngeen moytu di wistan seen yaari loxo ndox may rot te fekk ndox mi danga ko tibb ngir yóbbu ko ci cër ba is ngir kullu saa képp ci lii min fi an la til majnooni mi ngi bokk ci jëf yi ab dof wala mi ngi bokk ci jëf yi ni ab dof zakaraho tudd na ko zarruqu zarruq wal madiyooni ak madiyooni yeneen yëpp dañ ko boole ci ñu sib jàpp ne ku yeewut ku dof rek mooy jàpp di ko def zarruq wax na ko al madiyooni wax na ko alayhima yal nekk ci ñoom ñaar wa ridwaanu dil jalaali ngërëmal borom màgg ga wa rahmatullahi ak yërmande yàlla xalaatawaalin ci toftaloo dafa ñaanal ñaari sëriñ ñooñu rek yàlla dool leen ngërëm ak yërmande summa xadd aw jaboo topp waral nañu du xoola marfiqin dugub conca laakin na nasxa xaatamin waaye nag sumi ab jaaro maa aw jaboo waraluñ ko nee na dañuy waral booy raxas say loxo nga raxas ba ëmb conca ya tuuti ndax yem ca képp daa xaw a jafe nee na nag bu fekkee ne jaaro ba nga takk yoon may na la takk ko ni ki bu dee góor jaaro xaalis la te poids ba ëpp ñaar dërëmi yoon kon bu jaarob na noonu donte sax dëgëroon na boo dee jàpp mën nga koo bañ a toppale di raxas fu mu tëddoon waaw bu dee jaaro boo xam ne yoon moy la woon nga takk ko nag bu dëgëree faaw nga war koo dindi mel ne góor sañu di takk jaaro wurus kon nag bu takkee jaaro wurus te mu dëgër fa mu nekk faaw mu war koo dindi bu dee jàpp waxam mim na nga matale ra sa bopp ba kullahoo léppam bi masin ci ak masaa wayu ju si waaye dana doy alxaslu raxas ga makaanal mas ci béréb bu masaa ga nee na bopp bi lépp ngay masaa waaye nag boo ko raxasoon mu wecc ci masaa ga du tee ñu sib ko nag ndax laa waxan nga masaa dong yem ci kon boo ko raxasee def nga sax lu weesu masaa ga waaye daañu ko sib ndax da ngaa waroon yem ci fa ngaa waroon